leen di nuyu yéen mbokku internet ci ñu safo di ñu seetaan ak di ñu déglu saa su nekk rek ma dellu si waat rek si seen rubrique décortique bu soxal série bi Virginie euh, épisode 28 nak ak 29 moom la ñuy daal di euh, décortiquer tey jii dañ koy commencer rek ak li nga xamante ne moo am si épisode 28 bi nga xamante ne moo daw euh, ci jeudi bi te juju mujj ñu ko daal di jox askan bi li nga xam ne rek mooy suñu analyse ñu gis groupe bi nga xamante ne rek mooy Maïcha ak Dieyna ak ki nga xam ne rek mooy Kiné jamono ji juboo war nañ ba ñu ngi xalaataat rek naka la ñuy defaat rek pour créer waat beneen scandale laa mën a wax wala sax naka la ñuy def pour xam réellement li nga xamante ne loolee la kat yi di jéem a organiser Maïcha ak yi nga xamante ne rek mooy mooy ñaari ñaar nitam yooyu nga xamante ne ay commerce laa leen mën a woowee ñoom daal la ñu yónni ñu fexe test nit ñi ba xam lépp li nga xamante ne rek moom la ñuy ngir rek ñu daal di xam ñu wax ma Maïcha mu daal di dal beneen plan mu mel ni nit ku ne rek war nga nekkal sa bopp ndax tey boo nekkee sous dominance de quelqu'un na euh, yow lu mu la wax rek loolu ngay def ginnaaw bi nga xamante ne nag Maïcha euh, demoon na leen ba euh, daal di leen attaqué ci li nga xamante ne ci xaalisam lañ leen di la leen di jox ñuy lekk moom moo tax ñu xam yenn restaurant yi moom moo tax ñu daal di xam li nga xam ne mooy sol yooyu rafet daal di leen yóbbu kon nag c'est possible ba nga xamante ne tey jii lu mu bëgg si ñaar di di Kiné ak ak Dieyna dina ko am ndax te lu mu leen di defal moo tax te ndax bu leen bàyyi dañ ko am ñu gis tamit pexe bi nga xamante ne koy wër waaye nag dama jàpp ne laataaloo di jot rek di ñeen découvrir lire ki nga xamne rek moy flash ka kan mo nek derrière lepp li nga xamante rek moy xew ci école gis nak nek nit ko xamne ne fu mu dem rek daal di fa woné bopam gis nañ nak euh, ci li nga xamante na bi mu waxtaanee ak euh, politicien bi koku tamit jogna euh, dem ba ci yaayam te xam ngeen ne wajib dafa sensible tay ji wajib bu sañon tay bo gis rek lu muy ñaan yalla gis ku ñew ngir jappalé domam ci walum liggéey way nak dafa bari ci ño xamante ne liggéey bobé duñu jema xam lan mom la lan la ko mëna jural yan conséquence la ko mu ñu juro ñom la ñu gis wajur yu bari rek moy sama dom tekki ah, di ma fajal bu mu donté donte nak nag ah, jëm na wax yaayam rep li nga xam rek moy politique politique nak bu gisé ñep diko bañ fi Sénégal ah, fi suñu homme politicien yi nuñ koy défé fi Sénégal dafa ñaaw ndax dañ na doon fekk fi nga xamantane yow yaangi won sa pokus di dundu ñu fekk la fa not la fa jëlé la fa door la xaaliss ba mu bari duggal seen biir nga dem nak ba jamono yo xamante tay ji talato kenn nekkato bu kooku falo nga retrouver dans le chômage wala nga nek si jafé jafé gis nañ tamit wax ju ñaaw ji nga xamantene mom lañu yëkëti ah, diko wax suñu politiciens gis nañ tamit suñu politiciens cadre ah, yi ñi nga xamantene mom lañ neexalé askan wi bo am li nga xamantene ne lañ bëgg ci ñom bu ñu paree askan wi ci ginnaw ah, gis nañ tamit doxalin bu ñaaw bi nga xamantene mom amal ci assemblée nationale mu nekk lo xamantene képp ko xamné jeune nga té da nga nekk nekk ko am dignité nekk ko paré ngir rek mëna am li nga xamné lool nga bëgg wala sax nekk kat bañ ko wax dara sa wajur euh, doon la dugg ci politique ndax ku si dugg euh, paral te xamne say wajur dinañ recevoir euh, saga budul saga ci aduna dinañ ko jot tosh nak lolay baña yaayam te wax deug yalla gis na ni famu nek donte bari wut mu ngi ci sam mu ngi jappale yaay moy xam nga ñun jigeen ni lu upp beutam wala lu lu fessel beutam dafa bari donte gaayen bi ñew na ba foofu li bëgg rek moy d'accord mu dal di ko jël waye nak xalaatul ëlëk lan moko ci fekk ndax fi dina doomam dina fekke li nga xamanteni lolu bëggoon moom mu ndax dina nekk en sécurité parce que gis nañ ni ku fi nekk politicien ku mënu jot ci yow rek daf koy daal di def ci say njaboot kon nag mu nekk liggéey boo xamante ne boo ciy dugg nag ci sóoraale lu bëri waaye tey jii yaayu tos ak réaction bi nga xamante ne moom la def pare ngir bàyyi doomam doon te doomam bëggul mais nag comme yaay ak doom dañoo sax waa doom bu ne bu sañoon daal di tëral yaayam dina nangu yaayam li nga xam ne mooy proposition bi nga xam ne moom la bëgg ñu gis tamit kat yi ak yi nga xamne rek moy Toch dañ nañ dem ngir gisante ak seen benn xarit bo xamantene ñu ngi koy wax Windows mu nekk benn jeune fille bo xamantene mom leppam ci internet lay def je pense que ne buñ collaborer ak kooku noonu euh, tôt ou tard euh, ci jour yi ñu ñëw dinañ découvrir le vrai visage de ki nga xamne rek moy Flashka moy ki nga xamne mo nekk derrière ñom ñëpp di yàq turu nit ñi euh, di wax lu ne su boobaa yaakar naa ne bu fekkente ne lépp ci internet lañ koy jaay pexe bo def rek buñ ñu la naree teg loxo dinañ la xam ndax am am nañ seen xam-xam màcc ci li nga xam ne rek mooy wàllu nouveau technologie ba nga xamante ne lépp lu waaye di si def rek na nekk lu rafet ndaxte tôt ou tard booy def di nëbbatu bés dina ñëw doo nëbbatu ndax sa bés li nga doon def yëpp dina feeñ te dinañ la jàpp euh, tëj la ci kaso bi wala ñu def la loo xamante ne tey jii loolu euh, dina doy waar ndax àdduna nit kenn du xaawi suturaam ndax kenn ku ne si ñun am nga sa jardin de secret yo xamantene bëggoo xamal ko pourquoi ñu nekk ci réseaux sociaux di filigande di euh, divulguer euh, image ñi di wax wax ju ñaaw ci euh, kanamu nit ñi loolu lepp nekk loo xamantene war nañ ko tamit moytu ñu gis nak séquence bi daanaka luñ ci wax ci wàllum école bi sa bari wut gis nañ aussi kati ak ki nga xamantene ne rek mooy tesh dem nañ ngir daal di waxtaan pour mën a trouver ki nga xam ne moo nekk derrière flash gis nañ aussi ki nga xam ne rek mooy xam rek mooy tamit yaayu Toch ak lu mu bëgg rek liggéey boobu daanaka épisode 28 bi ça tourne autour de la maman de Toch ak euh, moom digganteem ak ki nga xam ne mooy kat euh, bu ñu ñëwee ci saison épisode 29 bi dañ koy dooree rek ak li nga xamante ne euh, mooy jàllo tey dafa jaaxle ndaxte bu gisee élèves yëpp daw si ci kanamam di yuuxu di ree mbégte am na ci diggante moom ak doomam doomam bi nag nekk kenn koo xamante nekk mooy paylo ba ñuy jàng ba tey ji amul moyen mu nekk loo xam ne metti na juróom ndax lu ne lay def si moom waaye tey ji nag xoolam sedd na ndax li mu doon cherché ci doomam gis na ko ba tax na nag ñu ne euh, jàmbaar daw dafa wuti doole kenn ku ne rek boo gëmee li nga doon góor góorgóorlu seet say waajur lu muy sonn ci yow war na tax nga góor góorlu boo ko mënta satisfaire à 100 pour cent mais nga def la moindre des choses pour mu am ci yow benn satisfaction boo xamante ne xam ne euh, sama doom bi nag tey bu ëllëgee dina ma ak jàppale. fi tamit ñu élèves yi tamit ñu gis euh, Toch wax fa kàddu bu rafet ba tax na mag boo nekkee ci biiru xale fexe noo leen di amee fexe noo leen neexalee fexe noo leen di bégloo waaye tamit fexe lu ñu la teg rek nga nangu ko ndax ñoom it en retour un jour viendra wax jooju Toch wax kenn ku ne jaar na ci te ñun ñi nga xamante ne on était dans les CM et di jàngee fekk fa benn mag buy jaay mu nekk suñu yaay souvent ñu nax ko souvent ñu siif ko souvent ñu lépp ko sax duñ ko fay waaye bu ñu yàlla dellu see suñu xel eh, suñu xool dañuy ñëw ndekk ndeysaan di ko ñaanal wala sax amaan na ñoo xam ne dañ dem ba am liggéey dellu si waat boobu de ko delloo nit le surtout xale loo ko lebal na nekk lu baax euh, ki nga xam ne mooy jàllu nag acte bu rafet lay def ci école bi waaye tamit élèves yi reconnaître nañ ko ndax dañ ko jàppee comme papa ñu gisaat tamit euh, ki nga xam ne rek mooy Amsa Amsa yi ñu ngi koy gën a xam ci la série maîtresse d'un homme marié mu nekk koo xamante ne euh, vraiment rôle bu mu joué ci maîtresse d'un homme marié daanaka loolu lay def tout le temps bu ñu ko ginee gisee mu génn ci benn scène nekk na ko am caractère te ay waxam bu koy déglu aussi da ngay xam ne kii lu muy wax da cee dugg bari na ci góor ba tey ñoo xamante ne fitnaal seen jabar moom lañ ci nekkee te bu ñu nekkee ci biir mbooloo dañuy mel ne ñoo gën ñëpp loolu nekk loo xamante ne war na jeex fii ndax ki la yàlla boole je pense que ne da ngeen war a ànd doon ay complice euh, comme ni ko euh, ki nga xam ne rek mooy. Muna ak jëkkëram di Abdul loolu dafa neex complicité bu amee si couple rek seytaane dafay daw ndax du fa am place kon nag euh, mu wone fa benn acte moom am cha malgré tout école euh, série bi soxlawul yenn ndax ay ndaw ñoo ko joué waaye nag yenn saay ci conseil dañ koy indi pour wan nit ñi que ne am na tey jigéen ñuy souffrir ba tey ci li nga xam ne góor moo leen koy def ñu gis tamit beneen mm, ki nga xam ne rek mooy Abdul nekk frer ci ki nga xam ne mooy Amsa mu yëkkati ay kàddu rafet daal di ko yedd xamal ko ne boo fa toog. da ngay muñ te bo muñee lepp dina jeex bu doon keneen daf koy daal di arrêté naan da ngay divorce mais nak nit bu nekkee ci ay jafe-jafe di nga ko njëkk xelal mooy mu delloo xelam ci yàlla waaye tamit muñ ci li nga xamante ne moom lay dund ndax bu ko muñutee bu fa demee keneen di fa ñëw mën ko te bu boobaa bànneex bi moom moo koy féete Matar Seck nak kenn xamul ndax ci biir flashcard ci la bopp wala déet waaye ba tey ji dafa nekk nit koo xamante ne daal il est un peu kii quoi dafa xaw a bizarre te ci ànd bi ngay ànd bi gi moom vraiment day wax li nga xamante moo nekk Tëngéej waaye Matar je pense que ne un jour bu ñu découvrir ki nga xam ne Flasca moom di ci génn gisaa tamit tos tout temps moom da koy pousse à ce que muy wax waaye tamit da koy yedd gis nañ tamit euh, diggante ki nga xam ne rek mooy Momo Camara ak ki nga xam ne mooy Fat Bintou vraiment mu nekk loo xamante ne yëkkati dafa ay kàddu euh, di ko ñaax ki nga xam ne rek mooy Momo ci wàllu maladie couver couverture maladie universelle pour ñu ñoo bëri ñoo xamante ne amuñu accès foofu pour ne l'état moo ko fa teg képp koo xam ne am na ay problème nga mun fa dem mais puisque yaayam jàngul xamul yéen nii dina doon jafe euh, pour mu dem fa waaye nag moomoo dina góor parce que am na ay xarit yoo xam ne vraiment da koy conseillé xaalis bu mu ko jox noonu un jour viendra mun na ko jàppale moom Fatou Bintou mu nekkoon épisode vingt huit ak vingt neuf yi nga xamante moo daw ci jeudi bi ak samedi bi mu nekkoon suñuy analyse yoo xamante ne moom la ñu am ci série bi euh, tey jii gisuñu sax ki Jeunes daanaka génn ci ñaari épisode yëpp kat aussi benn yoon la génn te ñaar ñoo ñooy les deux principales. Euh, actrices yi ñu mag yi ñoom ñaar lañ kon nag mu mel ni peut-être série bi euh, njeexantal léegi tey mu am mais nag balaa mu am faw ñu découvrir ki nga xam ne rek mooy Flashka kon nag mu nekkoon suñu analyse ñu amal ci épisode 28 ak 29 ci li nga xam moo daw le mardi le jeudi ak le samedi euh, may jégalu ci yenn kàddu yi di leen jaajëfal ngeen bokk internet ci ànd bi déglu bi duma tay di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi di 5 TV jërë ngeen jëf